Fafa TV fatawa jataayu fatwa jazakumullahu xayran cheikhana yal na yàlla sàmm te barkeel xam-xam gi yokk sa wér yokk sa fan mbokk mi ci topp ñu ngi koy wax Mamadou Diop moom it mi ngi woote kawlax moom it joxe na ñaari laaj laaj bi njëkk bi dafa wax ni ndax mënees naa sangu ajjuma sangu fa ajjuma euh, ndax ma ne na koo def ci suba gi su ko defee mën koo jullee ji ajjuma te doo sanguwaat su fekkee ne doomu aadama ji dafa sangu ci suba gi ba noppi euh, te euh, dem ci béréb boo xam ne munta sanguwaat ndax sangoom googu mu sangoon ci suba gi mën naa baax mu toftal ci wax ne lan sax mooy yàq li nga xam ne mooy sangu ajjuma kooku mooy laajam bu njëkk alhamdulilah ki nga xam ne dafa xëy sangu ci suba ci bisu àjjuma bi ndax ca ngaayam yi mën na ca eh, continuer ba waxtu julli ji àjjuma jot mu dem julli ji waaw loolu de lañ fay xool rekk mooy ndax illa ji taxoon ñu farataal ca ngaayu àjjuma ndax illa joojee sotti na ci cangaayam loolu yi nga xam ne da koo teel a def wala déet sax na ne li taxoon yonente bi alayhi salaatu wasalaam santaane cangaayul ajjuma moo di jullit yi ca jamono yooya lu jiitu ñu koy farataal dañ daan xëy di dem ca seeni tool di liggéey ak seeni barabu liggéeyukaay ba di fa jële aw ñaq wu méttee metti soxna Aïcha radiallahu taala anha ñuy def bu ñuy julli ci biir jumaa ji am xet goo xam ne dafay xeeñ nit ñi ba di leen sonal ngir yére yi nga xam ne moom la nit ñi tool euh, sol ak ñaq wi nga xam ne moom lañ indaale jële ko ca tool ya yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di santaane ne képp koo xam ne yaa ngi ñëw ci jàkka ji nanga nga sangu door a ñëw loolu daal di doon faratey cangaayul ajjuma su fekkee moom mi nga xam ne teel naa sangu ca suba sa benn yéene na cangaayul ajjuma ñaar amut liggéey bu mu duggaat ba xetu ay séram wala aw yaramam soppi ko ba muy lor ay doomu aadama kon dañuy wax ne du jar muy dem di sanguwaat cangaay lam sangu woon ca suba te yéene woon ko rek dana doy waaye nag ndax luy yàq cangaayul ajjuma lay yàq cangaayul ajjuma su ko xasee sangu mooy liy yàq rek njàpp lépp luy toj jàpp rek da koy toj lu dul boobu yi ma tudd léegi muy illa ji su fekkee ne soppiku am na ca ca xet ga su boobaa dana jaadu mu sanguwaat waaye su dul loolu yay toj jàpp rek ñoo koy toj wallahu taala alam